mais jili Matar bi saw fii. Seydou ndox bi ñëwoon ci élection bi dana fee sax ci génn gi ndox bi. ñëpp ñu. berapa? yow. kër yi borom kër yi. rajo. mu ngi tëdd na après pare rek daal def reportage. waaw. maa ngi Anta Diop. ah. ah.